dañu doon daje tey bii rek li ko waraloon mooy gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di ndokkeel di ñaanal sëriñ Muntaxa mu yàgg fi te wér du ndokkeel njabootu sëñ Tuubaa gépp di leen ndokkeel taalibe yi fi nekk yëpp ak jullit yi dañoo ñëwoon rek daje tey daawuñu ko def daanañ def act bi lii ñu def daanañ jamono bu ne ñu ngi ko daan def mais nii ñu ko defee daawuñu ko defee noonu ndax daawuñu ko leerale nii ba ñëpp di ko dégg dañ ko daan def rek ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne du du jar ñu di ko leeral ci ab rajo te muy loo xam ne askan wi dañ koo séq ak ñoom te war ko def tey nag ci ñi nga xam ne suñ borom dafa dogal ñu am ay yitte ak i ndog aki i téq te yàlla mi dogal dogalul seen man-man ak seen am-am àgg cee nuñ ko war a fajee te te ñu am benn jafe-jafe ñu ñëwoon fii ci commune bi di di yëgal ko commune bi muy population bi ci loo xam ne dañu leen dañ doon sàkku ndimbal ci commune bi ci nim leen ware ndax li ñu ñu fi tege nga xam ne mooy mooy nekk ci yitte askan wi loolu lañ ñu fi tege euh, moo tax sëriñ bi xalif général de Mouride yëkkati dëkk bi teg ko ci loxol suñu sëriñ sëriñ Sidi Abdou Lahad Mbacké mu yëkkati ma teg ma ci bopp conseil municipal bi ñu boole ma ak l' ensemble des yi nga xam ne ñoo fi nekk te conseil kenn ku ci nekk jóge ci genn kër ñëw ñu bokk fi nekk di téeméeri nit ngir ñu bàyyi ñu fi ngir ñuy toppatoo askan wi ci seeni yitte ci lépp loo xam ne war nañ leen koo defal te ñu de jéem leen koo defal te defal gi dañoo war wuti am ko defal leen ko suñ wutee ba bu ñu amul lépp lu ñu am ñu seet liñ toll li seen soxla toll ñu def ko ñi muy lenn ci dimbale way néew doole yi waaye lenn jëm ci pajukaay mi lenn li jëm ci ndox mi ñuy naan lenn li jëm ci hôpital yi ñuy fajoo lenn li jëm ci njàng mi lenn li jëm ci seet ak dëkk bi ak seetal ko ak leneen ak leneen ak leneen loolu mooy li nga xam ne moom la fi conseil municipal bi di def ci ndigalal sëriñ bi bi nga xamee ne nag lu mat juróomi téeméeri nit ak juróomi nit déposé nañ fi ay ndimbal yoo xam ne dañoo soxla ndimbal du ñun nag ñoo koy traité commune du ko traité dañuy dem ca CPRS mi nga xam ne moo fi nekk gouvernement bi teg ko fi wane ne ku am jafe-jafe da war a dem leeral ko ko moom moo lay teg ci yoon woo xam ne nii ngay def nii ngay def nii ngay def ba ñëw fii te monsieur le sous di kilifaam loo dossier boo fi gis nii ci 505 dossiers yii fi ñëw ci moom la dem mu def enquête bi bu dee ku nekk hôpital mu dem ba mu xam ke ne kii kat ci jamono yii mu nekk étape bii mu nekk am nay jafe-jafe mu door a bind loola indi ko ci commune bi bi ñu ko dajalee nag. ba jamonoy tabaski gi ñëw nga xam ne bépp koo xam ne ab sénégalais nga tey jaboot ah, am ngay jafe-jafe ndax ku nekk xam ne ne ñi ngi yëg ne jamono bi neexul jamono bu metti la ah, Covid bi encore ñëw jàpp jàpp ñu baree baree bari def téq yu baree baree bari ci nit ñi ba kenn ku ci nekk li nga daan man ak li nga daan am li nga daan man mënatoo lu ni tollu li nga daan am amatoo lu ni toll loolu nag bu fekkee ne dafa dal ci réew mi état bi day def lim man kilifa yi yàlla baaxee di def liñ man kilifa diine yi di def lim man commune bi it war a def lim man loolu nag tey moom la ñu dajale woon muy juróomi téeméeri nit ak juróomi nit yoo xam ne ñaar fukki nit yi ak benn yàlla dafa dogal dañoo nekk eh, ci lali hôpital yi nekk ci ay jafe-jafe te euh, charge ya fa war mënuñu ko hôpital bi def na ci lim man waaye taxul ñu war a mën a lijjanti ko ñu ñëw ci commune bi commune bi jël euh, lenn ci loolu jàppale leen ko muy ñaar fukki nit ak benn juróom-ñeenti nit ji soxna yoo xam ne yàlla dafa dogal ñu am juróom ñu am ñetti doom ñoom it nit ko war a soxla ndimbal ñu war leen a jàppale ndax nit boo xam ne euh, tuuti la suñ borom tabaaraka wa taala feeñal ci moom ñetti doom mu war di leen dundal ci meew moo xam ne nii ndax li muy am ci meew xëy na du leen du jot du leen doy mu war leen di jëndal meew ak di leen toppatoo ci seen wàllu santé ñaari nit yoo xam ne yàlla dafa dogal dañoo lakk lo ñoo xam ne nekk ci hôpital bi donc dema dema dema dem ba seen seeni ordonnance ak seeni jafe-jafe ñëw loolu mooy li nga xam ne ñooy ñi nga xam ne dañoo tëdd ci lali hôpital yi li ci des nag ay ja nit lañ yoo xam ne jamono moo leen dox ba dab leen ci njaboot ak ci seen ak wàllu dund xaw am jafe-jafe commune bi jàppale leen ci ñooñu kenn ku ci di quatre cent soixante-douze ñeenti téeméeri nit ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ñooy nit ñooñu loolu lépp nag bi ñu ko boolee commune bi génne fukki million ak juróom séddale leen ko ñi nga xam ne ay ordinance lañ euh, te tëdd ci lali hôpital yi mu jéem a fay ordonnance yi ñi nga xam ne dañoo ami doom ñu jéer leen jàppale kenn ku ne ñaar fukki junni ñu ngi ak ñi lakk ñi nga xam ne 472 personnes yi ci des nag mu jox leen bu ci ñoom yéene kenn ku ne mu yëkkati juróomi junni jox la ngir ka nga man koo dimbandikoo ci julli gi loolu daal moom tey monsieur le sous moo tax ñu woo ko ñëw di laase loolu di ko leeral ñi nga xam ne askan wi di ko leeral ñi nga xam ne ñoo ñuy liggéeyloo waaye di ko leeral aussi réew mi ndax di xam di ñaan rek kenn ku ci nekk loo man nga xam ne képp koo xam ne am na loo man nga sa bopp wala denc nga dara am na ku am jafe-jafe ci sa wet am nga jafe-jafe ci sa bopp nga bàyyi am na nga bàyyi leen xel loolu defe naa ne solidarité boobu moom la sénégalais xam moom la réew mi war a bindoo te yaakaar naa ne bu ñu ci jàppee ñun ñëpp di ci jàppalante mën naa bañ a métti ci kenn xëy na du neex ba ëpp ci ñëpp waaye jafe-jafe yi ci ci ñenn ñi nga xam ne suñ borom euh, teg na leen nattu war naa bañ a métti ci ñoom xaalis boobu nga xam ne dafa jëm ci lenn ci askan wi dama ko teg ci loxol professeur Ndiame Ndiaye mi nga xam ne mooy président commission sociale bi ak Serigne Mbacke Mara mi nga xam ne ñu bare bare ràññee nañ ko ci sociale loolu ci lañ ko teg ci seen loxo ngir bëgg joxe win wi sell te yaakaar naa ne ñaar ñooñu lépp lu tegu ci seen loxo dana demee ni mu war a demee ci askan wi mboolem lii nag 505 personnes yi amul ku ma ci xam man xaw ci kenn. recommandé wu ma ci kenn dugaluma ci kenn ndax ku ma bu ma gisee koo xam ne yaakaar na ne kii bëgg naa koo dimbale war war naa ko dimbale wala diis na ma ndimbal ci li ma suñ borom baaxee danaa ko yëkkati jox ko waaye du ko dugal benn yoon ci lii nga xam ne alali askan wi la wala lii nga xam ne lu ñëpp bokk am na yeneen yu mel ni moom yoo xam ne du ko wax ci rajo waaye lii nga xam ne yëfi commune bi commune bi la war di ko def dana ko def Abdou Lahad li ko war te man ko dana ko def ngir yàlla ak yonent bi ci bindeef yi. lii commune de Touba def dafa bokk ci ay sañ-sañam dafa bokk ci warugaram dafa bokk ci liñ koy xaar ndax action sociale ba 1996 état moo ko yoraloon boppam waaye bi ñëwee ba 1996 la ne dinaa jukki. ci samay sañsañ juróom-ñeent ma jagleel ko gox-goxaat yi te loolu action sociale ci la bokk ci biir action sociale nag gaa yaatu na mais li ñuy wax secours aux indigents daf ci daf ci daf ci bokk maanaam jàppale ñi nga xamante ni bii xëj na jamono boobu seen loxo jotul seen ginnaaw kon nag li nga def nii tey yow ak sa conseil municipal luñ leen di xaare la woon dafa bokk ci seeni mission lu leen war la waaye nag faw ñu jaajëfal la ci yow aussi itam ndax kat dégg naa mag bu baax bu ne nit ki bu defee la ko war nee ko jaajëf ndax am na ku xam la ko wax te defu ko donc monsieur le maire yokk sa conseil municipal maa ngi leen di féliciter ci li nga xamante ne bii moom ngeen defal seen askan daanu nag moom dajut suuf ñëpp aussi mënuñoo am waaye lu ngeen si jukki rek day doon lu baax li ma ci gën a rafetlu nag mooy doxalin bi loolu itam ñun ñëpp war nañ see jànge ndax am ñoo war a dimbale nekkat kenn du déposer mairie service bii nga xamante ne bi Cissé moo ko jiite di service de l'État képp ku bëgg soxla si ndimbal li foofu ngay dem déposer loolu yaakaar naa ne bonne pratique la boo xamante ni bii commune yu bari ci Sénégal war nañ cee roy ndax kat saa yu ñu tollaan jamono bii am na ci ñoo xamante ni bii ci biir commune yi ngay déposer am na si ñoo xamante ni bii buñ leen joxul sax dañuy jàpp ne li ñu àndul ak maire bi moo tax joxuñ leen waaye yow loolu da ko dàq fële da ne service état bii moom nga xamante ne bii mi ngi fii ci wetu ci wetu ci wetu service euh, ci wetu station Shell bi foofu la ñuy déposé donc ka déposé ak ka ñàkk déposé yow xamoo ci kenn waaye li mat a rafetlu mooy ña déposé woon foofu daaw ak ren yëpp jox nga leen dimbal donc loolu mooy tekki ne amoo si xàjj amoo si seen yaakaar naa ne loolu bu dee lu ñuy jàpp ci bonne pratique ci wàllu joxe ndimbal ci commune loolu moom bonne pratique la boo xamante ni bi war nañu ko siiwal nit ñi xam ne kat joxe baax na waaye anam anam yi ngay doxee itam dafa am solo te yow nag wax dëgg yàlla jàpp naa ne ni nga ko defee nii par parloo daal gisuma ko ci waaw gisuma ko ci donc loolu maa ngi la ci gën a encouragé euh, lu baax moom boo ko tàmbalee moom amatul amatul arrière at yii di ñëw saa yu ñu ko war a defaat xamal na lii moom bonne pratique la bul si jóg ndax kat yaa jaboote ñëpp ñuy yeewoo fii ci biir commune bi donc waruloo am xaaj waruloo am seen te loolu nga wane maa ngi la si sant bu baax di leen gërëm wasalaam.